Guédiawaye dafa am sécurité moo tax ñuy jóge ci àll ba naan Guédiawaye amul sécurité ñoo xamul li ñuy wax xoolal ma lii tubaari kalamaas ñoo ba ci otu géej gi foyen taw di liggéey waaye Guédiawaye am sécurité waaye bu leen ragal bu leen tiit waaw waa Guédiawaye ñëw leen ku nekk ci àll ba tamit ñëwal Guédiawaye ngi sécurité xoolal gars yi li ñu def xoolal gars yi ñëw ba ci otu géej gi foyen taw tax ay ay kulambe ay kulambe ay kulambe ay kulambe jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñiy seetaan wasaare làmb yëpp di am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci géejawaay seet si fi kenn koo xamante ni magu mbër yëpp la muy liiru jaan mu war a bëree kan wulli le 15 décembre fële ci Gambie moom la ñuy ñëw xool nan lay doxee ak entraînement ak nan lay waajee combat bi nga xamante ni moom lay bëree ak wulli kon Basir ñu dem xool liiru jaan ak wulli nu ñuy def. ñu lay fay sëñ bi. dañoo gis sànq liiru di def entraînement am ngeen topp ko di ko yuuxu di ko xëmb di ko kii lu waral lool. ndax parce que liiru sampion la liiru mbër la moo xam ne macha allah tey monument Guédiawaye mën nañ ni liiru ci la bokk ndax avant Balla di bëre ay keneen ak keneen liiru la woon kon sampion la ancien lutteur la booy xool te màggetu jinne la dese na ngalaju ndax deux heures da fekk si maaraw bi muy entraîné ñun dañuy ñëw di tërëng mais dañ fi fekk grand livre muy entraîné lu metti lu tar champion la moom ay Alioune Seye ay Billy Boy ñoom ñëpp mbër yëpp nag mais liiru champion la tey mbër mu jël avance am bëgg a ci moom tey jàpp naa ni foo nga entraîné lu metti ndax parce que géejawaay liiru mooy suñ monument champion la. xam nga ki muy dajal. ah xamagu ma ku muy dajal mais maa ngi doon dégg ñu naan wulli peut-être que ni wulli lay dajal ah. kay xam nga ko. mais wulli nag wulleem yooyu naka téye ndax parce que géejawaay daa màgg tey li fi amoon amatu fi li woon wóni na liiru du barrage boo xam ne da ngay ñëw jàll ku tëb benn tëb na la leer ni dese na la beneen tëb te liiru du tëbukaay. looy wax wulli na yem na réglé ki nga daan noonu du mbër big pato moomu zemi la day entraîné ngir jàpp ni ñi di mënate di yóbbu am nga nag daj dëpp te bu la liiru jàppee billaahi di nga xam ne liiru ak liiru jaan bokkul kii màgg na léegi dina zor la bu la jàppee dina la wal ba nga nooy waaw champion la nag ñi muy entraîneel boxe boo leen xamoon doo sax song naan da nga koy wulli jàppal loolu nag dégg nga accident bu mu defoon nga naan ko ay nii ak loolu da cee jëlee xam-xam jëlee ci as dof waaw acca sam jaajëf maam liiru loo wax ci combat euh, liiru jaan liiru champion la champion la incha allah yal na ko yàlla may nam rek sëñ Fallou loolu rek la wax waaw yéen a ko doon ba léegi naan ko liiru lay ñëw géej di tëral sëñ bi bàyyi jaajëf gaynde boy jëf mbokk yi comme niñ leen koy waxee ñu ngi nii toog ak champion nga xam ni ñu ci bari nee nañ monument la ci géejawaay magu Alioune numéro 2 magu Lac de Guiers magu Balla gay 2 magu Sa Thiès ak yeneen mbër yi nga xamante ne ay génération la nekk ci géejawaay doon ay xale chaque jour boo ko déggee muy wax li muy wax mooy jiital ay rakkam boole uuf ñëpp doon benn xaritu doomu ndeyul wulli muy Alioune euh, muy euh, lu mu tuddati liiru Diane baa ngi lay nuyu. waaw maay booy maa leen di ziar si loolu ne yéen ci jàmm waa wasaare. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf sëriñ tubaa jarama mam Cheikh ma fal maa ngi sant sama ñaari waajur sama yàlla ko yàlla xaare àjjana sama yaay di ko ñaanal gudd fan at wér gu yaram di ñaanal waa Géejawaay gépp ñu am jàmm di ñaanal sama rakk ji mooy Alioune Seye 2 bu ne yee na ma ko entraînement tey soo gisee lii diine lan doon dem waaye ma xam ne soo ñu dem diine day gudd ci yéen may leen yem géej maa leen ziar waa Wassare ndax gis na li ngeen liggéey di nuyu waa États-Unis di nuyu waa euh, euh, kaddu moodu moodu ca États-Unis Iba Kara ko di nuyu sama xarit yi ñu nekk états ñëpp di nuyu waa Géejawaay di nuyu sama doomu nday Jéy Seen sama doomu ndey sama xarit di nuyu monsieur le maire Aliou Sall Sall ngaari Bourou Guède ak Néné Tall ministre de la jeunesse di nuyu Modou Mbacke sama xarit di nuy grand champion Balla Gaye 2 laa ilaha illallah jëy seen sama doomu ndey sama xarit di nuy waa Guédiawaye gépp di nuyu sama sëriñ bu baax baax ci man teral ma biir teral ma biti sagal ma dafa lu ma lu rëy loo xam dama ko wax léegi muy kan sëñ Madou Seye borom tawféex ay sëñ Madou Seye borom tawféex su ma koy wax damay am feer muy sëñ Madou Seye borom taw feex dama koy wax fukki yoon ak juróom-ñett ay sëñ Madou Seye borom tawféex ay sëñ Madou Seye borom tawféex ay sëñ Madou Seye borom tax su ma koy wax damay am feer daf maa defal loo xam lu rëy bis bu boobaa su ma koy jëli dinaa leen wooy yëpp di nuyu waayam ja Nicolas booyam ba muy Nicolas sëñ Madou Seye borom taw tawféex di nuyu soxnaam Yacine Yacine Ba soxnaam ak taawam bu jigéen bi Nday muy taawam bu jigéen mooy taaw sëñ Madou Sey borom taw feex ak Yacine Ba muy soxnaam du nuyu rakkam ja maam jaara borom poroxaan nga xam ne su màggal poroxaan ñëwee day jël trang yëpp poroxaan yóbbu poroxaan Nicolas nag booyam la Nicolas booyam la ay sëñ Madou Sey borom taw féex ay sëñ Madou Mbaye taw booy lii bis bu ko daggee baalu ma leen ko waa wasaare ndax yéen si li ngeen def dafay wasaare te ñëpp koy tas booy damaa sonn nag di nuyu sama doomu nday Modou Mbacke jéy seen di nuy ay soxnaam Kumba Saadi at say na at say di leen nuyu di nuyu euh, Balla gay 2 grand champion yàlla ko yàlla lafal cat ah dafa am tuut tànk nag ñoo ngi koy ñaanal doomam jooju yàlla na dund ba fekkee moom mu fekkee ay njariñam moog yaayam Séeri Buri li xam nga su ma nee Balla gay dama dama naan Séeri Buri li bàyyi Mohamed Magu Sakes rakk liiru jaan koo koy Balla gay 2 grand champion Géejawaay lool yàlla ko def bañ bañ nangu ay Aziz Ndiaye la ilaha illallah ay Aziz Ndiaye mu alaaji Ala Ndiaye. Aziz man doomu ndey wul eh, tuut yow booy eh, attention wala maa dugal la foofu attention Aziz Ndiaye c'est mon ami c'est mon frère Aziz Ndiaye doomu Géejawaay tata bu Géejawaay barki dem moo Ndiaye ah cam ku dem këram ñëpp xamee nañ ko ak wuli ah, arrête yow saytaane nga ah, doon nat wala boole saytaane nga ah. Aziz Ndiaye fu mu nekk doomu ndey wul di nuyu Baye Ndiaye sama xarit doomu nday Balla gay 2 di nuy grand Massata Ndiaye grand bu baax ak sama doomu nday Dieye Sène fàttewu ma mais liiru euh, kon wulli am na problème parce que wulli dafa mel ni xaritam yi ko doon jàppale ci làmb yëpp danga koo nangu bàyyi ñooñu ay doomu géejaway lañ dañoo bëgg géejaway mu at Baara Gueye King Oil waaw at ah, Andaw Ndiaye sama jarbaat at Fouta Saw borom Seeraas at waa Seeraas gépp at Baydi Ba maire Gunaas Baydi Sëy ñooñu dañoo bëgg Gounass dañoo bëgg Guédiawaye ñun Guédiawaye lañu am te xam na ne man maay monument Guédiawaye maay magu xale yi loolu yàlla ko def maay magu Balla gay 2 di magu Lac de Guiers di magu Alioune Seye 2 at guy gi at xale yi révélation bi ñoom Pape Thiam 2 mais at ñoom asi Pambaay booy Pambaay sax fàtt naa nekkatu fi Pambaay ma nga fële ma nga Europe sax waaye dina ñëw at booy yooyu booy yooyu yëpp ñoom caat bu waalo soo booy tout ñoom taalibe Seex gis nga booy ñoom ay entraînement xam nga man dama am lu jafe ndax man su ma demul entraînement booy ñoo may jël sama kër su ma Alioune Seye 2 may wa jàmm man li ma am dafa jafe. mais wul man nee na eh, man màggatum jàlla billaahi wallaahi taala su ñu àndoon entraînement barki Serigne Saliou Mbacke laa ne billaahi wallaahi taala su bàyyiwul du ma bàyyi ndax man xam naa li ma man munu ko moom li ma man moom munu ko ay ma Modou Seye borom taw fii ay surprise bi ma defal laa ilaha illallah. surprise boobu booy du ma la ci bay cat laay ba ñu ndax coow li dafa bari temps di nuyu sama yaaj ji Adja Gass ci Angleterre ak laat borom Qatar sama booy ba waaye laat boroom Qatar di nuyu sama diaspora bi ñëpp alam ndaa doomu ndayu euh, Asmalik ak sama benn booy Taala mu sëñ Babacar Taala ma nga ca Espagne ak sëñ Cissé mu sëñ Babacar sëñ Modou Faye sëñ Samba nduur sëñ Gassama Xaadim Kanji ñoo ñëpp maa leen nuyu at sama sëriñ bi sama sëriñ bi dëkk fii Géejawaay ñëpp maa leen nuyu baay ma liiru liiru dama bëggoon ñu waxtaan Euh, bëreeg euh, wulli fu mu la yóbbu parce que dafa mel ni bëreeg wulli am nga ci loo xamante ni lu bëree bëree bari bari bëri loo xam ne ci sa combat yow ak wulli nga ko am. xam nga ma xamal la benn koom affaire dafa am man lu ne def naa ko ci la man nee naa la ku ma yeb tey nga ma yeb bi ma defee accident bi. Serif Tambédou kooku sama sëriñ ay Serif Tambédou ay Serif Tambédou Géejawaay dëkk sama sëriñ la maa ngi koy ziar bu wér a wér Serif Tambédou doomu nday géey seen at laat bàyyi gis nga ma xamal benn affaire euh, bëreeg wuli dafa ma yàgg topp du tey rek billaahi wallahi taala dóor naa ko istaat man dóor naa wuli istaat damaa tax mu ñëw di ma dëkk ma dóor ko su ma demee nag làmb dafay dox dafa prouvé dafa bëreeg daan dafa bëreeg daan moo tax ma nangoo bëreeg moom te ba ma promoteur bi wax dama ne ko su daanee laay bëreeg moom su daanee ma bëreeg moom loolu moo tax ma bëgg a bëri dafa rëy làmmiñ dafa am coow nee na man nee na nee na man moo ma may coow man ba may am coow moo amul coow ma nga ca àll bay bay mais moom combat ak yéen ñaar seen combat nee na ci nga amee visa États-Unis oh, fi nga amee oto oh, ci nga demee tukki yu bari may expliqué la man ma xamal la benn affaire moom man dafa ma fekk may sant yàlla yàlla may ma ay nit yu baax sama doomu ndey jéey seen da sonn ci man guddeeg bëccëg di daj ci man ay coono bëgg ma te yàlla tax te bëggantuwuma ma tuddee ko doom man ba may xew moom xewul ma ngay bay xaj na nag sa damay sant yàlla ndogal moo ñëw ma nee naa ku ma yeb tey nga ma yeb bi ma defee accident bi moom euh, sama gars yàlla na yaar xaare àjjana mu ku ci mel père Alioune Seye père euh, a Seck Cheikh Mbeng Cheikh Seye ak ma Ba yàlla na yaar xaare àjjana ñoo bokkoon accident ba yàlla na yaar xaare àjjana at di nuyu sama waa ji euh, Thierno loo loo Ndam Siré borom Daaru Musi mooy Giraan ba ma defee accident bi wax dëgg yàlla taxaw na ci di nuyu sama waaj sëñ Madou Seye borom taw feex su ma koy wax du ma doyal sëñ Madou Seye borom taw feex ndax dafa am lu ma defal lu rëy lim la defar lim ma defal lu ma ko wax léegi cat laay bañ mu topp sax bis bu ma koy jëli dinaa leen woo yéen ñëpp nga xam ne man du ma moroomu wulli Aziz Ndiaye gàccee nga laa ma moo bëgg géeje way bëgg sama rakk ji Balla Gaye de laa ilaha illallah ay Aziz Ndiaye kenn du Aziz Ndiaye déedéet Aziz Ndiaye doom bay Alaaji Ala Ndiaye magu badu ah, magu baay Ndiaye magu Balla Gaye de ah rakk Masana Ndiaye at kii sama waajo wax dëgg nag liiru njaat ak njaat njaat déglu ma non déglu ma may ma dama am benn waay doomu nday as njaay la ak ñoom Baye Njaay ak Balla gay muy njaat njaat dafa baax ci man dama jàppale xam nga man booy yàlla dama ma dimbali man ni gars yi ma bëgg ah. man damaa war a góorgóorlu ah. man ku war a góorgóorlu laa moo tax man lu ma liggéey dama koy xeeb may booy man lu ma liggéey dama koy xeeb rek barki sëriñ Bamba billaahi lu ma liggéey dama koy xeeb waay waay gàcce nga ma yàlla na yàlla dafa jàmm gis nga dafay def benn affaire ci man ndax wuli dafa rëy làmmiñ day rattati rek dégg naa nag li muy wax Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye doomu géej way la su ko neexee su ko neexee faral ma ak du tey Aziz nee la faral. kan Aziz Ndiaye man la faral Baye Ndiaye man la faral Badou man la faral Ndiak man la faral. wuli dama ko doon dégg ci kombaam yu bari. muy tudd Aziz Ndiaye keroog bi ma ko laajee daf ne ma. liiru Diane ku mu waxal danaan ko seytaane nga waaye damaa bëgg maître Aziz Ndiaye en l'aise liiru Lirou du ko wax benn wax boo xam ne da koy oh. metti tey ñu dégg ah, yow man Aziz lu ma koy wax Aziz di sama ami sama frère dëkk Guédiawaye bëgg Guédiawaye man Aziz Ndiaye lu ma koy Aziz Ndiaye kay dama naa ko gàcce galama Aziz Ndiaye ginnaawam bandang Aziz ginnaawam bandang Aziz yow Aziz di sagoo Guédiawaye di tiitaroo Guédiawaye bëgg Balla Gaye sama rakk di ko jàppale bii rek bi xoolal barki Demba Ndiaye li mu ko waxal ci gàmmo gi ah waaye Aziz Ndiaye gàcce mooy Baye Ndiaye. sa combat yàgg wulli ñu ci bari nee nañ. làmb ji dóor mu daanu lay jeexee. si si si dóor mu daanu boobu. surprise si si mën naa ne si ndax dafa bëgg xeex te gënu ma kaa bëgg dafa xeex te gënu maa xeex man kaay xeex ama gënal kaay lekk. du yomb de déedéet combat bi at booy euh, mbëru géej way booy yi mobilisé. man loolu dafay daw sama yaram. Basir gis nga lii liiru takk. Eh. boo gisee yi xonq yi bu takk lii nga xam dafa mel ni moom mu ngi ci combat bi moom dafa mel ni commencé. sëñ Madoum Seye borom taw féex moo ma ko jox. sëñ borom taw féex moo ma jox kii kii. kon de yaa ngi ci combat. waaye bu ma ci nekkee du tey sëñ Madoum Seye borom taw féex moo ma ko jox. <laughs> lamb ji du yomb de gars yi dañ gën a bëgg lamb ji. li ci bëri ah, su yaakaar moom moo gën a kan moo bëgg lamb ci mystique moom moo teg lamb ci moom moo teg man ci ñoon tey tey ñu bëri tey tey. sëñ Madoune Seye borom taw feex taman gars mu waa Guédiawaye autorité nekk Guédiawaye du ñu bëgg lamb ji Euh, euh, nu mu tuddati euh, Moussa le maire Aliou Sall Sall ngaari bu diggee nee na lamb ji sama lamb <laughs> loolu li koy fay loolu dafa neex mu <laughs> mu ministre de la ministre de la jeunesse nee na taal bëgg lamb ji ne sama lamb ja waaye waaye li koy fay sëñ mënu soy taw feex ne lamb sama lamb la lii lu koy fay liggéey rek. mais jàpp nga ne arbitre ne prix ci digg géew ñu ta ngaas booy bi su xuusee ñëw sama kaw ma door ko ma wàcc <laughs> ni muy màmmee bi su arbitre soufflé mu ñëw sama kaw ma dóor ko ma wàcc man maa la wax lii. na ko peese wala oh, nga jàpp ko ëpp doole oh, ni muy bëree xam naa ko. booy bi dama jàng ni muy bëree bis bi àddu suuf lee mu xuus ñëw sama kaw ma dóor ko ma wàcc nee man kat tey ku ma yeb tey nga ma yeb tey laa gën a mën a xeex xam nga man dama daa bëree entraîné rek daal di dem ay affaire mystique yooyu gëwuma ko woon ndax lu tax gëwuma ko ndax xam nga man taalibe laa ndongo daara laa damaa jaar daara am na yoo xam ne yu bari dama ko mën a def doomu aadama waaye combat bi li ma jaral moom xamu ko sax moom xamu ko dégg naa fu ne ma ngi fay dem di wut wala ñaata nga ci def ci mystique bi ngeen commencé ba léegi yoratuma dara wax dëgg yàlla dëgg rek a neex yàlla yoratuma dara waaw reer sama doom day moo ma koy jox chaque jour jiey seen moo may jox reer ak jabaram Kumba Saadi ak ñoom sëy na bu ñoom ñëpp maa leen gërëm di leen sant waaye daal ma xamala benn affaire ay sëñ Modou Seye borom taw fi kooku su ma waxee tu tudd ma ko damay am bàkkaar ndax surprise bi mu def ngañ Demba coiffeur bu mag boobu nga laa ma ngañ dafa bëgg Géejawaay tamit ngañ sama rakk la sama xarit la dafa bëgg géej. nee na wulli fiñ bi wulli nee na moom kër Balla Gaye la la bëgg a interdit parce que chaque jour yaa nga fa xale yi gute buñ nar a lekk. nga lekk ko ah moom moo wax wax non man yow loolu laa. sama rakk la Balla Gaye c'est mon ami sama frère Balla Gaye sama rakk la Sakya sama rakk la. Aliou Seye 2 da laa bëgg a dóor ba interdit la kër. non mënu ko day wax la ko neex rek du dégg naa neen daf may daan après jël saa kees moom amul jom ba ko saa kees di duma ko daan maa indi saa kees amul jom. dafa amul jom du nee na man màggatum jàlla bis bu ma jàkkaarloo mu at bi gën suñu diggante bi dina xam ne màgget mi dese nay dangar maa la wax lii man su bis boobaa dina xam ne màgget bi am na lu mu dese man maa la wax lii man waaw léegi noonoo non booy yaa ngi signalé naan deux minutes waaw jaajëf rakk jaajëf rakk merci beaucoup merci ak mooy Mbassirou Diouf. Ah, waaw def revue de presse maa ngi koy seetaan booy sa revue de presse tuwaar kàlla macha allah na gi. saraax li ngay revue de presse tuwaar kàlla macha allah yow nag gis nga yow booy saytaana nga yow. <laughs> yow mi revue de presse doo saytaane waaye yow mi yaay saytaane sa bopp bu ndaw bi yow demoon nga Gambie gis naa la doon def Gambie yaa jamay kee yem at Lamine gis naa loolu ngeen ma doon kompaloo saytaane yi nga doon Babacar am na toq saytaane ndaa ma si am na toq saytaane waaye lamin nee naa la man daal booy boobu caméraman boobu te nga xam ne mën na sol tubay te du takk ceinture maa ko naw day takk day sol tubay te du takk waaye lamin su solee tubay dina takk ceinture de Babacar solee tubay dina takk ceinture beuz beuz beuz moom sama waay la beuz Babacar moo beuz amul Babacar amul dara beuz maa ngi koy gërëm beuz bu Lutte TV sama waay la waaye Lamine saytaane la ah déet waay bul ñëw fii di attaqué kenn yow nag wulli waxoon na ma ko nee na ma boo demee dina la wax saytaane ah, nga soo yaroo daal may la doo wax saytaane waaye nag ni ngay koppato déglu ma may la saytaane nga saytaane nga wuyu ma maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp képp ku yeewoo Géejawaay di gërëm ñëpp ah, nuyu nuyul ma sama Issa Kebe non Issa Kebe Seeru ma Maria kii séeri Milia ca fële dëkk ba Alma. Canada mooy kooku mooy Kebe la. séeri Alma Alma kayit bi Issa Kebe lii xoolal ma fii booy Issa Kebe waxal ma Issa Kebe. Issa Kebe waaw ca mu ne non Issa Kebe se man kay li Milia. Kebe. séeri Melani Issa Kebe séeri Melani. ca ca Canada Issa Kebe séeri Melani ca Canada des na samay fan yu may bëggee tubaabu joor ca Espagne waaw ah jiriloo mooy borom Bilbao ay eh, jiriloo borom Bilbao bëgg Balla Gaye bëgg Lirou Diane Pap Ndiaye borom Brésil waa Brésil yéen ñëpp fan si club yi mu am Brésil yëpp maa leen di ziar di sant Mor Ndiaye dollar ah kooku mooy Mor Ndiaye dollar des taala Espagne taalibe sëñ Babacar bi waaye maa ngi nuyu diaspora bi ah, di nuyu Pape Mama sama doomu nday sama xarit Pape Mama maa ngi koy ziar bu wér a wér euh, di nuyu euh, sëñ Cissé mu sëñ Babacar ay kooku dama ko sama xarit la sama sëriñ la sëñ Modou fay sëñ Samba Ndour sa Touba at kii nu mu tudd waa waa waa waa waa Italie euh, restaurant Mama Dior restaurant Mama Dior ca Italie di nuyu Pablo Pablo doomu nday Siradio ñooñu fan la nekk ñoo ngi Torino at kii nu mu tudd sama waaja ay waay waay waay kii boo euh, taalibe sëñ euh, taalibe sëñ taalibe sëñ Mansoor ba taalibe sëñ soor ba oh, sama doomu ndey taalibe yaa ngi gërëm ñëpp waaw mënut a ñàkk taalibe sëñ ba ay waay waay waay yaa ngi gërëm ñëpp rek taalibe sëñ Mansoor la waxal taalibe sëñ sama xarit la waaw euh, di kii booy bi sama booy bi nu mu tudd Seri Aram Cumbe kii Seri Aram Cumbe Matar Matar Ndiaye Matar ca Espagne Seri Aram Cumbe at gaayam yi fa nekk yëpp maa leen gërëm di sant sant bàyyiwuma kenn ku ma limul rek damaa juum maa ngi jégalu ay sëñ sëñ Cissé sama waa ji sëñ Madou Sey borom taw feex di nuyu soxnaam si. maam jaara mooy rakam. a taawam bu jigéen bi. yaa ngi nuyu ñëpp waa waa Géejawaay gépp yaa ngi waxtu bi waxtu bi. Yacine Ba mooy soxna sëñ Madou Sey borom taw feex Yacine Ba mooy soxnaam ah. Ndey Rama mooy doom mooy taawam bu jigéen. ay sëñ Modou Sey borom taw feex booy dimbali dama ngi def bis boo ko daggee bis ko daggee fu ma leen dajee sëñ Modou Sey borom taw feex sëñ Modou Sey borom fukki yore jub daf maa defal lu rëy loo xam surprise la maa gërëm géej way ko taata taata nga sa musiba mën ak wulli daan wulli fu mu lay yóbbu fi naa ko wax baaxul ndax dafa rëy làmmeñ lu nekk wax na ma nee na màgget màggetum jaan laa moom de géejawaay gépp la attaqué waaw moom géejawaay mosu fi am ndam sama booy yëpp daan nañ ko géejawaay mosu fi am ndam dama koy may chance rek barke Sëriñ Mbamba man ba may toj tojul su ma neexoon duma ma bëreeg moom Saar bu sëñ man sóor séeri Aminata Diallo sama doomu ndey la maa ngi nuyu waa Paris yëpp ñoom papa Ndiaye doomu dóor ñëpp non non ma la dóor yow soo juma rek du ma la dóor lii nag bis boo ko daggee ma xam ne saytaane nga barki rasulullah soo ko daggee ma xam ne saytaane sëñ Madou Sey borom taw fee fukki yoon juróom ñett bis boo ko daggee ak soxnaam si maa ngi koy nuyu ñoom ñëpp maa leen nuyu ak Nicolas booyam ba ñëpp maa leen nuyu rek di leen sant di leen gërëm jaajëf jërë ngeen jëf mbokk gis ngeen li nga xamante ne moom la liiru jaan wax yëpp rawatina li mu wax ci wasaare wax dëgg macha allah sëñ Basiru boo dégloo revue de presse macha allah nga xam ni xale bi am na jom bokk na ci réew mi te àdduna bépp naw loo nañ wolof nag daf ne doomu ñay kenn du ko ñaana rëy déedéet da nga koy ñaanal gudd fan ndax guddee fan rek rëy sëñ Basiru yàlla na fi yàgg loolu te wér borom ndég ne taar sama xarit bi nga xam ne mooy borom wasaare mooy borom wasaare borom wasaare wasaare sëñ Basiiru borom wasaare moom ma ngi mooy def revue de kii mooy sëñ xam naa ko mooy booy borom wasaare ay sëñ Basiiru kenn moom mooy gis nga li muy revue de presse yow waaw taala taala damay déglu si revue de presse su ne ci xew-xewu lam ay sëñ Madou ay sëñ Madou borom wasaare wasaare <laughs> jërë ngeen jëf yi kon foofu laa leen di tàggoo ba ak incha allah ak beneen daanaan fii ci wasaare lam jaa ngeen jëf